waaw xaaj Fada maa ngi lay de maa ngi lay fay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suñu gars yi ñu ngi seetaan yëpp vraiment gars yi commentaire ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen wax jumaa mu bare rek di leen baal wax te di leen baal wax tamit di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ah moom mu pari ba léegi mais bim mu pay pare yàggul ah mais mais fu fu mu fu boña Niang ndax coow li bari na ci mom lolu saa ni ha. combat boña combat boña su combat boña Niang fan la boña Niang numéro 2 toll ala gi tafa kandi. pare rek yor ji koy e soccet rek soccet mom xam nga bala ñu naan o fekk nañ ko mu jatu ni mi def tàng waaw mom dal ci jatu la toll fi ne di xaar fan ngeen toll seen diggante promoteur yi Wa promoteur yi de gaa yi de ñu ngi kii de gaa yi de ñu ngi bëgg de. Hmm. waaw gaa daal ñu ngi bëgg honnêtement. Hmm. parce que waaw parce que xam nga comme ni ko gaa yi xamee woon avancé woon nañ trop ak waa Alburax Events. Hmm. mais bon après nag euh, après dañ xëy après rëg-rëg dem signé ak Gaston production may nuyu Makan aussi moom suñu frère la. donc loolu xam naa ne bokk na ci li xaw a xaw a tuuti rek ralentir discussion mais Makan aussi bu ko bëggee ñun pare nañ rek ñun daal bëre rek lañ bëgg. Mm-hmm. waaw. mais mais Albourakh ba léegi dafa bàyyi ki nga xam ne nii tey jii mooy Boy Niang wala négociation bi ñu doon def ci diggante ak Boy Niang ba léegi Albourakh mu ngi ci. waaw dafay am nag yoo xamante ni loolu da nga koy baal xam naa du ma ci mën a avancer ci biir live nag honnêtement quoi. nangul na la ko nangul na la ko. waaw waaw parce que day yo xamanteni manam ya ma xam dal duma ci mëna avancer trop trop trop. lu di bari bari bari ji nuru la bu sedd bi mooy waxtaan ci rew mi de. <laughs> waaw ngi nuyu suñu frère Jamil Samb. waaw nuru la bi du moy Jamil Jamil Jamil ñu koy ziar ba baax borom nuru la borom nuru la si. Mm. mais dama waaw. man a laaj ayul seen fii làmb toll nii guddi yi ñu toll mhm. fan la promoteur yi toll ak seen ak proposition yi ñuy proposé waaw ndax boo ñaa numéro deux saa yi nii ñaari combat yëpp ñu ngi koy proposé mhm. boo ñaa numéro ñu ngi koy proposé Siteu ñu ngi koy proposé Reug Reug mais seen diggante Reug moo gën a nekk cible bi mhm. seen diggante Reug Reug moo gën a nekk cible makan meng bëgg na ko alburax bëgg na ko saa yi ñu toog nii promoteur yaa ngi leen ërtal suba ngoon fan la affaire toll waaw xam nga suñu man dama ne xam nga parce que combat boo xamante ni comme lamb ji taxawagul man dama ne woon sax damay éviter di ci wax lu bëree bëri. loolu du mën a ñàkk wax ji mën a ñàkk wax ji du mën a ñàkk de. au début. Hmm. au début gars yu bëri peut-être dañu yaakaaroon ne. Hmm. xam nga lu ma la wax booy ñaa day éviter rek rek wala staff booy ñaa hmm. dañuy éviter rek rek. parce que dafa am loo xamante ni papaay booy ñaa dafa génn am nu mu waxee woon. mais ci côté bi mu waxee woon. ñu bëri comprendre ñu woon maanaam waxul woon ne. comme exemple tey booy ñaa du bëreeg rek rek parce que man rek rek papaam sama xarit déedéet dégal moom dafa waxoon mu ne booy ñaa actuellement du bëre ak rek rek rek du suñu cible am na ci droit mm-hmm. mais moom mooy papaay booy ñang mais booy ñang mm-hmm. du dégal dong maanaam du père dégal kese mooy diriger ci ay affaire booy ñaa wala moo ciy décider malgré mooy papaam mm-hmm. parce que dafa am benn ensemble boo xamante nii ñom ñoo nekk autour de Boy Niang ba paré père de gol aussi am cër bu mu leen ci jox ba paré nangul leen ko. Mhm. donc père de gol mën na bëgg li mais ñeneen ñi baña bëgg loolu mom après il est obligé mu fekk si ñu. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais rek rek champion la rek rek champion la ndaanaan la mais bo tëddoon ba xaajo guddi ñu na la rek rek Boy Niang da koy moytu ci lamb wala waa kër Boy Niang dañu ragal rek rek mais ça loolu waroo ko gëm sax. parce que boy nak ñi mu bëreel boy nak ñi mu mm-hmm. bëreel ku bëreeg ñom ba paré non mais honnêtement aussi bien vrai que avec tout le respect man que je dois à reg reg mais vraiment ñu booy nag bëreel boo bëreeg ñom ba paré amoo looy xel ñaar ci ci reg reg honnêtement mom kay le promoteur mais dama gis ne ñoom ci seen communication ci seen cible ci seen lepp moy li ñu visé mooy booy ñaan ñi mu Reug ndax tamit loolu du heureux ci ñoom ndax dama gis ne tey jii champion bu mel ni boña bëri ndaanaan yi mën ci làmb bëri ndaanaan yépp tey jii rëg rëg moom dafa jàpp ne bëri boña bokk na li gën a yomb ci sama carrière ndax tamit loolu loolu la ko jàngatee waaw waaw waaw moom na jàpp loolu rek ba combat bi taxaw ba bis ba ñoom nañ jàpp ne booy ñang beñu dugub la rek <laughs> nañ jàpp loolu rek après ba bis ba insha allahu rabbi góor nag balang koo yab da koy ñam ba pare dëgg la mais xam naa ne de ah Boy Niang de yàlla xam na ne su ma waxoon ak moom en privé man ak moom kese kese kese ñu wax fu kenn nekkul. Hmm. mu wax ma loo xamante ni niru na dara loo xamante ni luy niru na bàyyi xel la ci rek rek. Hmm. barke alxuraan karim man ma bàyyi ko dem kon kay du doom a gis caa ci ginnaaw. mais mais dafa yaakaar ni dama yaakaar ne sax tamit euh, waa Caaroy Géej nekk fi dañ leen jëw tuuti quoi ndax man dama jàpp ne. waa Caaroy Géej nekk sama yaay lañ nag. man li sama problème mooy dañoo fàtte kan mooy Boy Niang numéro 2. ndax tey jii bu ñu demee ba Reug Reug mën a taxaw ndax combat bi toll na foo xam ne nii combat boobu warut a échec Boy Niang numéro 2 dafa war a jëflanteeg ak Reug Reug te Reug Reug jàpp na ne lu yàlla bind ci làmb mbër mi gën a naqaree gën a neex a daan mooy Boy Niang ndax nee na li ko gën a neex ci combat bu Boy Niang mooy Boy Niang benn bennal ndax loolu tamit yow en tant que ku jógee Boy ku xam ay qualité Boy Niang ak Boy Niang li mu def ci làmb chaque jour ngay dégg Reug Reug ah mu ne nangam nangam loolu noo ko jàngatee noo ko jàngatee. waaw da kay koy nangu rek parce que xam nga comme comme comme làmb moom am na démocratie kenn ku ci nekk aussi. da ngay wax li nga xamante ni moom nga xalaatee rek comprendre nga parce que tamit kenn ku ci nekk boo amee sa mbër faram mu toll ni mu war a toll mel ni mu war a mel aussi vraiment fu mu jëm tamit fu mu jëm tamit am xel yaa Reug Reug très normal noonu muy xalaatee noonu loolu pensé la rek xam nga rek champion la ba pare macha allah fi mu ne nii dafa toll ci yëg boppam quoi man naa bëre am na doole macha allah am na ginnaaw donc rek ci logique boobu rek la nekk moo tax mais doo ko bañal. ndax am na doole mën naa bëri rek doy na ci sa diggante boo ñaa ndax loolu doy na. ah loolu loolu ah doy kay làmb kay boo amee doole não, peraí. di leen ñaan sutura ak xewal yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax a baax a baax ndax noonu lay demee problème courant la woon mais nañu ngi lay nuyu waaw delloowaat naa la delloowaat naa la nuyoo bu baax kay mhm, naka foofu da nga war a am groupe électrogène non dina ñëw dina ñëw waaw wala nga def solaire <laughs> digganteeg dàllu moom sa digganteeg dàllu moom sa digganteeg dàllu bu caaro yi moom xam naa du sedd moom. non dàllu non non non grand dàllu sama sama grand la quoi sama grand la xam nga sama waay la mënuma werante ak moom quoi honnêtement. Hmm? waaw dàllu boo demee bu bëgg ko wax moom dama lay indil Cheikh Niang rek mu wax ak dàllu. Eh, eh, eh. Cheikh bu Thiès. waaw Cheikh Niang. Thiès mais grand daal sama waay la quoi man man dama ko rus quoi mënu ma xam moom. mais nag Tapha fii carrière bu Boy Niang toll fii carrière bu Boy Niang toll ak ci làmb. demee bañ naan Boy Niang Reug Reug loolu noo ko jàngatee nan Fadam avancement làmb la rek parce que xam nga entre Boy Niang ak Reug Reug li ñu magantee bëriwul du dëgg. Mhm. donc ay tofalañ rek ci làmb mhm. ay tofalañ ci lamb moo tax bu mhm. ba vraiment lamb war leen bolé boole rek rek aussi fofu dox na ay djégo rek rek aussi dox na ay djégo ci lamb vraiment parce que am na lu fi def mom tamit ma mhm. waral dem ba lamb war ko bolé ak booy ñang mais booy ñang mom tamit vraiment lim fi def xana jaratul nekk nii sax xam nga may nekk di ko étaler ak yooyu moom si dégg naa la sax nga wax ko sa introduction. Mm. mbir la xamante ni vraiment ak loo fa contre contre contre moroomam yi gën a tëj ci làmb yaakaar naa ne ñu ci bari booy ñang daan na leen. Mm-hmm. vraiment te bëri ay combat yu méttee méttee méttee méttee. Mm-hmm. am na ci mm-hmm. combat yoo xam ne am na ci défaite waaye am na ci tamit yoo xamante ni am na ci ndam. vraiment fu toll ci lamb tay rek jom ak fulam ak fayda moko fi indi quoi mais ken tebulu ko wala jaaral la ko lu ki jéemal ko lu yoon non parce que lamb comme nim ko waxee sank ben combat li des ci lamb ci sen carrière ñom ñooñu yaakaar ken kenn mënatu cee bëre combat bu sét mm-hmm. waaw rek rek nak ak waakaram këram bëgg nañoo bëre boy ñaan lool may waaye paré ni gis ci boy ñaan ba ñëmé ko ni man loolu dafa ma jaaxal wa dañu ma kan ji damay tok ba ci ag ne lan mu leum rek rek gis ci boy ñaan ak muy mbër mu mag moo xam ne nii boo ñaa nekk futur champion boo xam ne nii te champion en général bu musaana jóge ci defet buy ñëw lépp lu mu manqué woon da ko indaale Reug Reug ci defet boobu noonu ci la bëgg a profité ba rek boo ñaa lan la lan la gis ci boo ñaa ba ñeme ko man loolu mooy sa ah, na dafa yaakaar na moo man rek loolu la yaakaar rek wala mu yaakaar ne benn dugub bu nooy la rek bu saf suukar hmm? ah loolu la yaakaar xëy na nag. tafakaan ñi gis nga ci rëg rëg ci moom gis nga ci moom lu war a jaaxal boo ñaar gis nga ci moom. non champion la nag moom. champion la honnêtement champion la quoi mbër la moo xamante ni soo ko jëlee aussi da nga koy waajal koi danga nga koy waajal sérieusement nag parce que champion la quoi xale la macha allah am na kàttan ba pare te mën naa bare am na ndox du bëre. donc adversaire la boo xamante ni doo ko négligé quoi doo ko doo ko oyofal boo ko jëlee. mais mais tey jii lan nga jàpp ne tey jii mooy qualité ci Reug Reug lan nga jàpp ne mooy qualité bi. Reug ah mën naa bëre de macha allah. ak mën naa bëre. te gëm-gëm bi mu am mooy lu mu jàpp moo ko moom. ndax ko moom boo ñaar bu taxawoon dina àgg ci jàppante. mën na cee àgg mën na cee xam nga làmb bëre dóor moom làmb bëre dóor moom bëre lay doon ak dóor làmb ji nag mën naa am jàppante mën naa bañ mhm. Mhm. gis ne rëg-rëg jàpp ne ne moo mën boo ne daje na ak boo ñaa mooy combat bi jeex na tey jii bu loolu amee yow nga nekk ku jege boo loolu lan nga ci mën a jàngatee mooy li ma la waxoon rek Papa Sama daxal pobiter la rek xam nga japp ne suma jappé ki lamb ji jeex na taxut lamb ji jeex lamb mom des fois fatam da nga koy sento fet ñew mu laaj fetal leg leg tamit man nga ñew yaakar ne li ngay japp ci noy na nga ñew japp fekk sa loxo ci ay dégg nga ko teg <laughs> dafa kanji en action da ko sta bouge pas ñu ngi lay ziar li ziar bu baax da dafa kanji jërëjëf kot yaa ngi dégg pata sama gënal pombiteer kuñ ci kuñ ci kuñ ci tëj rek sa avocat baaxul. waaw baaxul mais man balaa maa ñëw ci kusu Aliou Ndiaye ma li sama problème Tapha Kandji mhm. ndax Reug Reug xam na kan mooy Boy Niang ndax man dama jàpp ne bu Reug Reug toogee plateau Lutte TV taxaw ne Boy Niang bu arbitre sifflé woon sama diggante moom dama koy daan ci 3 minutes. bu arbitre sifflé woon dama koy daan ci 3 minutes. ñu tax mu ne Boy Niang day benn benn loolu yow en tant que. ak bo ñaaman mi ma xam ci rapidité ci mëna a bëri ci mëna xex nek nekk nga xam door na fi mbeur mu daanu bëri na mbeur dar ko ci doxtu tu bëri yooyu yëpp boo def ko loolu en tant que bo diggé ko wax ko melni bo ñaan ñaa loo comme luma wax rek waaw gis gisam gis gisam la rek mu ne booy naa day benn benn moo tax mu ne mu ne da ngay daan ci 3 minutes mais Euh, mën naa ko dagg posté ko suba bu la neexee. non seeraat naa ko seeraat naa ko. seeraat ah, naa ko dagg posté ko ah, man ndax man man man lépp am na fu ma ko teg ah. non seeraat naa ko walaay seeraat naa ko walaay. mais xam nga wax jooju moom. wax jooju moom tey mënoo cee rek rek dara. maanaam mi ngi mel ni yow tey nga laaj ma rek ma ne la bu arbitre sifflé booy ñaam da koy dóor mu daanu. Mm-hmm. moom moom jàpp na ne bu arbitre sifflé ci trois minutes mu daan ko ci parce que xam nga. waaye daal xam naa ne léeg-léegi li ngay bëgg ak lii am du doon benn bër tamit man nga koo analyser ba natt ko ba yaakaar ne xam nga ko fekk xamoo ko balaa ñëw sori tabaakaan yi bala maa ñëw wii ki deuxième tour bi mooy tabaakaan yi su ma la déggee mooy am ngeen promoteur bu ngeen jubóol ci wàllu combat bi non jubóoguñoo kenn nag jubóogu leen kenn ci kàddu déedéet jubóoguñu mais am na foog ko xam ne ni yéen a ngi toll seen diggante moom ci laa waaw non non alburax sore woon nañ ak ñoom sore woon nañ ak ñoom léegi nag après ci diggante bi après rëg-rëg dafa signé ak Gaston Production Gaston Production tamit bon peut-être tey mën na am tay te yëgaguma ko quoi wala wala mu am démb mais ñun ubbi nañ suñuy bunt pour ñëpp faram mais man dama doon dégg gars yi jege rek naan booy ñaar rek ñi mu booy ñaar waaye yow loolu ay waxi lan la faram hmm? gars yi dañoo kii rek gars yi dañoo dañoo bëgg a bëre ak Boy Niang rek waaye nañ def ndànk rek dinañ bëre incha allah mais Boy Niang ñëmul Boy Niang ñëmul rek rek moom loolu yaakaar naa ne moom wax ju yàqu la mais grand Aliou Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax